nii ngeen ma investir ni naa leen promettre pour jël conseil département bi tegal ko seen loxo ndax ku ma xëccoon nga ñàkk te ba mu duggee si géew bi ñëpp daw ñëw na maa ngi leen di sant bu baax di jiital sama jant aussi ci mbooleem responsable yi jógee si commune yi àll bi ku ne xam na ni guddi na mbooleem commune yi kenn ku nekk yabal nga fi ñaari ndaw mboolem responsable kenn ku nekk yebal nga fi ñaar ndaw muy ñoo boo xamante ni pour le département la waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom fàttali leen ñaax leen ñu gën a taxawaas pour li ñu xamante moom lañu jox jëm muy élection le 23 janvier 2022. mu di loo xam ni kenn xamutoon dat ndax depuis ñetti at a ci si ginnaaw. élection yi war nañ koo def defuñu ko woon ku ñu xam na ne bi mu ñëwee ensemble man mii di wax yow def na amendement pour ñu def élection yi ci mois de décembre ngir mu bañ a génn 2021 ndax li ko warloon mooy nguur gi si boppam dafa waxoon ne bu ñu tëggee élection yi 2022 élection législative duñ koy dàq ba 2024 ndax mun ñu def ñaar élection ñu bi ñu xamee loolu ñu def amendement mais ku ne xam na ni nguur gi lenn seen lenn leeru maa ngi sant aussi ñi nga xam dañoo bokkul APR te démissionné ñëw fekk suñu tey ci bokk gis-gis te xam ni ab tàmbali la mais képp ku nekk APR te nekk ci département Mbacké pare nga pour bàyyi APR ndax amul njariñ sàmmul kàddoom gëmul Sëñ Tuuba kon jàpp naa ni fii amuñu ku ñuy bëreel ndax bu ma dee yëkki nii ñu fi des ay yaaw jàll ñu ne yeneen candidat yi kon seen morom di gërëm bu baax la président bokk gis-gis mooy président Pape Diop biig bi muy ñëw rek waxtaan nañu si saafante nañu si muy leaderu parti bi ma nekk secrétaire national nekk membre comité directeur nekk secrétaire exécutif chargé des jeunes yi maanaam leen ku nekk si parti bi nga nekk député nga nekk conseil municipal nga nekk conseil département man maay si kilifa loolu yàlla dogal kon loolu cër bu am cër bu rëy la boo xam ne bi ñoo ma ko dégg ma nekk vice président commission de loi bu assemblée nationale mboolem loi yi ñuy tënk assemblée commission bi ko jiitee man vice président laa ci nekk tamit membre conseil administration Assane Asalem kooku dafa am loo xamante xeex la boo xamante ni doomi Touba moo ko xeex seen doom moo ko xeex seen frère moo ko xeex bàgg foofu noonu xeex boobu nag yéen laa koy gërëmee ndax tey bu ma ñimee yéen nekk sama ginnaaw gisuma lu ma tax a ragal ndax lii fi nekk jëlu ko fi yomb na lool te fii lay tàmbalee te bu ma ko wax war na koo gëm ndax démb ba léegi nelawul ndax ku ne xam na ni lépp lu ñuy làq si dëkk bi di ko nëbbu di ko luubal di wax askan lu dul dëgg dinaa taxaw génne ko wax askan lu dëgg wax li ñu ko war a defee wax fi mu jaar wax yoon wi ba nga xamante ni askan dana yeewu loolu moo tax ñu nommé ma tey ren ma nekk le meilleur type de l'Assemblée nationale ñu war maa jox raaye boobu le 10 euh, si le 10 juin bii di ñëw ni insha allah kon ndam loolu dama ko delloo Serigne Touba ndax ndamu Serigne Touba la kon loolu tamit il faut askan bi xam loolu ren la man lan ko éli may meilleur député kooku sant la sant Serigne Touba la ndax Serigne Mountakha moo ma xamal mercredi ba le passé ci sama kanam waajur mu ne ma fa nga nekk man nga fa nekkal Serigne Touba nga fa nekkal te ku am pëstin ku doomu Serigne Touba wax nga Serigne Touba ku am pëstin nekk yaakaar naa ne war ngaa mën a sant yàlla ma doomu nekkul li ñu war a wax nag bari na muy parti bi muy ci allée yi muy ci dëkk bi muy ci réew waaye leen lu nekk dañ si jël tuuti rek pour tënk tàmbalee ko suñu parti bi ñu bokk la bokk gis-gis ku ne xam na ne bokk gis-gis bokk na si porte bi nga xamante si département yi moo fi ëpp doole ndax jàpp naa ni am na fi ñett député am fi ay conseil département te ku ne xam na ni boo ko gis-gis tamit actif ak leadership am ci département kenn mënu koo nattam ba tax na ñi nga xamante ñoo créé woon bokk gis-gis la membre fondateur yi te galo mi wax ko di ñaanal Baye Talla Mbuub di ñaanal Iba Guèye ñoom ñëpp tey ñu nekkoon si bokk gis-gis ñu créé ko ba ñu ñëpp tey ñëw ñu yaatal ba ñoom ñëpp ñu dugg si kon xam naa ni bokk gis-gis ba léegi may wax ak yow boo ko gis-gis fa mu taxawoon fu ko gën a raw fa taxaw ndax bis bu yàlla sàkk ñuy am ay mit yu bees yoo xam ñu ngi ñëw. am na loo xam ne ko si il faut ko ma wax ko ñu bañ ko bàyyi xel ñu bàyyi xel bu baax xam ne dana ñëw am na ñu bokk suñu parti ñu wax ne dañoo bokk suñu parti te ministre de l'intérieur xamal ma ni ma am na ñu bokk sa parti yow. ñu ma yabal sa biir pour ñu xeex la pour yàq sa image yàq parti bi département Mbacké loolu am na mënuñu ko am wax na ma ko ci assemblée nationale kon bu ngeen gisee ay nit fan yii di wax bokk gis-gis di wax attaqué bokk gis-gis ñooñu appel bu nëbbu la da leen a yabal te ba dina leen ay moyens jox leen ay moyens loolu te il faut que mu leer xam ni bokk gis-gis man maay coordinateur bi ñi fi nekk ànd ak man ay gor lañu samp nañ may seen candidat nekk député toogal fi peuple bi toogal fi askan wi fas yéene maanaam remplir li nga xamante ni mooy conditions yi nga xam ne moom la ma sarse woon lu ma ci man def naa ko benn doomu aadama laa loo xamante nag lu xew fii ci parti bi maa génn samay moyens bopp kenn joxuma ko lu askan wi maa génn samay moyens bopp kenn joxuma parti bi muy dugg si parti fekk na ma yor alal bi mu duggee si parti teewul maanaam li may continuer di ko def fekk na maanaam la ma mënoon sax mënatuma ko mais dama ànd sama ngor sama gëm-gëm lépp loo xamante ni war naa koo def def naa bis bu xamante ni nag def bilan jot na bi ma falee assemblée nationale ba léegi te lu ma investir ci département bi dinaa ko génne pour wax ni lii laa def mais mën naa sënkal léegi lenn loo xamante ñett yoon la 72 millions francs CFA muy juróom-ñaar fukki million ak ñaar def naa ko ci ci ci ci Covid bi ci sama xaalis bopp ci 1 million de masques yi ma joxe joxe naa 5 millions sur gouverneur bi joxe naa 3 millions 500 fii nga xamante ni mooy ci Mbàkke joxe 1 million 500 à l'ensemble ci ay matériel bokku la ñi nga xam ne laa jëndee ceeb bi ak diw yi di ko seddale askan wi loolu sama xaalis bopp la mën na téeméeri million kon kooku yaakaar naa ni bu yaakaaree ni kenn yaakaar ni alal ji ma yor nit moo ko jox waxuloo dëgg kon askan bi nga xamante ni ñoom laa promettre digul leen dama doon waxoon def naa sax lu ëpp la nga xam moom laa waxoon mais loolu bilan lay doon boo xamante ne bu ñu àggee ci élection député te yàlla dogal mu yàlla bàyyi ñu ñu war a laajal daan wax ni ban ma lii laa fi def ci ndox lii laa fi def ci Quran lii laa fi def tamit ci li moo jëm ci mbirum social ñii laa jàppale ñii laa dugal ci jumaa yi ak jàkka yi ak li nga xamante ne mooy population bi ak école yi kon loolu insha allah si kanam raw li bët di wax rek si mbirum assemblée nationale assemblée nationale ku ne xam na ni assemblée bii nga xamante lu ñu nekk bari na loo xamante ni am na fa loo xamante ni lu bari woon nit ñi war koo xam mooy amul transparence bu ñu watee bis duñ ko contrôler bañ na ko ba li nga xamante ni moom nga dégg ñuy wax barki démo mbaay muy 59 milliards yu ñuy jël jënd ko avion présidentiel sax dañ koo dëxëñ ci assemblée nationale ci ministre force armée député yi wote ko te xamuñu moo tax démb ci plénière bi ma wax ministre de finance ma ne ko 2018 2019 ba 2020 amuloo benn kayit boo mën a génne wax ni député yi wat nañ maanaam benn loi wala benn procès pour maanaam jox Macky Sall mu jënd alal mu jënd ci la ñu yokk bés bi à 64 milliards francs CFA pour que wax ne dañ see war a jënd maanaam benn avion militaire équipé ko avion militaire nag bu ñu ko waxee pour ñun militaire ñoo tax mais waxuñu président de la république loolu moo waral député yi ni tam armée bi ñoom ñooy suñu kaaraange nañu wote léegi loolu sans débat moo tax ministre force armée bu ma sax ñu assemblée nationale kenn du ko wan kenn du ko contre ndax armée bi moo tax ñuy def loolu nekkati ñoom bu ñu bëggee sàcc wala ñu bëgg luubal wala ñu bëgg maanaam ndax sax nañ àllu réew mi dañ jaar jaarale ci force armée mais loolu wax naa ko démb dana fi jeex ministère bu dikkatee dinaa jël engagement dana càmbar bis seen xool ko xoolaat ko ba nga xamante ni dana xam liñ si dugal ak liñ si du dugal bañ na ko sax ba moom ministre de finance xam naa ni dinaa consulter ak sama avocat ñu jéem ko traduire a la justice ndax dégg ngeen mu léegi yoo xam ne secret défense la ndax ku ne xam na ni wax na chiffre bi exact bi nga xamante ni moom la avion bi jar te loolu loi ko tere yaakaar naa loolu tamit il faut que ñu xool nan lañ koy defee ba nga xamante ni lu mel noonu déetul ñu daal ndax ñu ñu di wax yow wote ko xam nañu ko mais comme moom mooy ministre des finances yore ko bi ñu ko jaxaselee jaxase ko si biir moom mu dina daal di génne li nga xamante ni secret la woon boo xamante ni dañ ko nëbboon nga xam kenn wuru koo xam moom mu daal di koy wax pour ñëpp man ko ko kooku yoon def na aussi lañ si war a wax ñu wax ko document yi am naa ko avion bi gis naa ko mi ngi Perpignan loolu daan si waxaat bu wax jotee incha leen li nga xamante ni moo jëm ci mbirum alliés yi alliés yi ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ndax mboolem parti allié bu nekk fii tàmbale ko ci PDS li nga xamante ni mooy Pastef waa kër Malick Gakou Grand Parti waa kër Khalifa Sall waa kër euh, Mamadou Diop Decroix waa kër Mamadou Lamine Diallo waa kër Cheikh Bamba Dièye waa kër Khalifa ñoom ñëpp ñëw nañu seet si ma seeni kilifa yi si kaw jox nañ leen ndigal ñu fas yéene créer une grande coalition une grande coalition boo xamante ne pour jël département Mbacké jël commune u Mbacké jël beneen commune si àll bi kon nañu xam ni élection yi ñu jëm ak coalition la ji demee incha allah coalition yi nga xamante ni moom laa leen fi yëpp seeni kilifa joxe nan ndigal pour que ñu ànd def benn coalition bu mag beneen bi nga xam mooy mburoog soow bi mën naa sax bañ a wax waaye ñoom lañu xam ni la ñu amoon 2019 ki leen ko mayoon mi ngi nii te nanguwaat na ko te ñoom bu ma leen ko waxee ndax fii laa toogoon jiite woon yëpp yi yëkkati sama mooy def si ànd ak ñoom jox ko li mu yore ba mu ne moo jël seen dinaa ko rocc si ba mu mel ni sirop bu dindi si ndox delloo ko maanaam fa mu nekkoon ba pare nekk kaali ci biir mburoog soow bi ba nga xamante ni ku ko lekk da ngay di waxaat ni fii nga xamante ni mooy Touba ni ma ko waxee Serigne Mountakha dama am pas-pas am yéene bu rafet ngir bëgg koo jàppale ci commune Touba am programme aussi ndax Touba fi may wax ak yow budget bi war naa ëpp fukki milliards ak juróom bu ñu ko jaar la yoon xool yenn ñiis la jaar. pour que mën a sàmm dëkk bi mën a aar dëkk bi muy sécurité éclairage assainissement génn fi mbalit mu mi nga xamante ne dafa nekk si biir dëkk bi yooyu yëpp ngir jàppale sëñ bi ci liggéey ba tax na nee naa ko boo ma tànnee day dinaa nekk maanaam pour jiite mairie bu Touba comme sëriñ bi mooy tànn bëgg naa ne muy mairie su si candidat dans le bu de Touba si si candidat dans le conseil département mais maire Touba nag sëriñ bi moo koy joxe te nee naa ko na loolu moom dama bëgg mu leer comme dañuy joxe rek sëriñ bee joxe te wax naa ko li ma bëgg ak sama amis sama yéene te man naa ko si liggéeyal pour mu jox man na ki fi nekk dafay layaam layaame rek kenn xamul fan la teg tànk yi kon xale yi maa ngi leen di dollee am ci yéen confiance xale yi maa ngi leen di dollee sant di dollee sant aussi jigéen ñi bu baax a baax di leen gërëm ci turu soxna maam jaaram mi nga xamante ni gor la ba muy metti ñu àndoon lu nekk mu gis ko lu nekk mu dégg ko mu ànd ñoom ci nekk jigéen ñi fi nekk ñëpp pour que ñu mën a àndandoo sampandoo pour yi ñu jëm ñoom ñu gis seen bopp man taxul may laaj mais ñoom ñoo tax ndax xale yii laa bëgg tey ñu bokk ci conseil départemental ak jigéen ñi am ay postes responsables pour jàppale seen njaboot loolu moo tax may laaj conseil jël secrétaire général boo xamante ni bu jàngalee doon boo xamante si nit ñi laa ko jëlee pour ñu ne fii élèves yi étudiants yi nekk si àll bi mooy saint bi Dakar Bambey ñu jël ay subventions jàppale seen li nga xam seen taxawaay ndax jàpp naa ni étudiants yooyu taxawaay bi leen commune yi war a taxaw des na kon war a jàppale ndax fan nekk dañoo sonn loolu jël naa engagement bu ma yàlla mayee ma jël conseil département bi fu ñu nekk dana leen wutal ay logement ba nga xamante ni seen jàng doon ko mën a jàng jàng tranquillement ba nga xamante ni benn jafe-jafe benn bopp pare naa aussi mbooleem communes yi. ñu def fa ay tournée ci programme à partir le 5 bii di ñëw ci mois de juin. 5 juin le 5 juin commune bu nekk na nga préparé wax ni bis sàngam bëgg nga ñu recevoir ñu def délégation pour wër commune yi commune par commune bu ñëwee xool ka fa jiitee ñu wax ko mu continuer ànd ak ñoom war a ànd ci coalition ba nga xamante ni tey bu ñu si àggee ci liste yi pour ñu defar ko dafay yomb te xam ni li ñuy liggéey nag ci lu baax. am na ñu ni si ñun lañu bokk ñu ngi liggéey lu bon pour yàq waaye bu leen déglu bu leen gis bu leen xool li leen ñor mooy département bi li leen ñor mooy seen leader te ñu ngi si adhéré si ginnaaw président part Diop mi nga xam mooy suñu kilifa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp si vrai merci jërëjëf leer na waaw li ma la siy tontu lu gàtt la mooy nguur jigéen ci dëkk bi président Macky Sall moo ko bëgg a daganal te duñu ko d'accord tey duñu ko d'accord ndax kilifa diine yi ànduñu si islam da ko dàq ak suñu aada ku ne xam na ni kuréel googu nga xamante ñoo jóg pour xeex lool man mii di wax ak yow contacté naa leen nee naa leen jox leen ma projet loi bi ma porte ko pour déposer ko assemblée nationale ndax loolu règlement intérieur assemblée ak constitution bi jipp te la ko may ak nguur gi te xam naa ni nguur gi pareegul pour yóbbu ko assemblée pour ñoom ñu wate ko mais man buñ ma ko joxee ma ànd ko ak député opposition yi dinaa jël projet bi dépôt sur table président assemblée nationale ngir que ñu def criminalisation nguur jigéen ci dëkk bi. ndax bu leen fàtte ni njiitu réew mi Macky Sall moo dem Italie ci benn seen télévision ñu ne ko ndax nguur jigéen ñi am nañu sañ-sañu manifester woo ak wax seen i droit Macky Sall ne am nañ sañ-sañ bi. am nañu liberté bi ci article constitution bi article vingt cinq moo leen ko may mooy le nouveau droit comme nouveau droit boobu dugg na nag ñu dem ba leen le droit de chair sans boobu noonu mooy ñi nga xamante ni mooy ñu bees ni te loolu lu ñu ko def yëpp pour jublu pour am xaalis pour mën a doxal seen bis moo ko waaye doon combattre ba loolu fa am ndax kilifa dine d'accord aussi loolu mooy doon merci